dalal ak jàmm Kajoor mais fekkee ak dal dalal ak jàmm ñu dalal aussi ki nga xamante ni moo di Pape Malick Thiam hmm, daal di lay ñëw retrouver le plateau matinal Allô Sénégal euh, Pape ñu ngi lay nuyu euh, maa ngi lay fay Aïcha di euh, nuyu bépp Euh, dal leen ak jàmm la revue web Kajoor dañ koy tàmbali ak euh, waa Seneweb ñoom nag euh, ñu ngi dellu si waat ci procès bi nga xamante ni moo dox diggante Adji sax ak Ousmane Sonko mais plus précisément ak ki nga xamante ni moo di le docteur Alfouseyni Gaye moom mi nga xamante ni dafa daal di réfuter li presse bi wax waaw li presse bi wax nag mooy xam nga témoin la woon ci procès bi nga xam ne moom moo amoon ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko la mu fa jot a wax nag ak euh, li ñu presse bi fësal moom en tout cas dafa jàpp ne euh, dafa woroo euh, ba tax na nag mu bind ab bataaxal ngir daal di dindi tuuma ndax tuuma la ko jàppee moom nee na li ñu wax ci li nga xam ne. moom moo ñeel wàllu sper spermatozoïde yooyu nga xam ne euh, tudd nañ ko ci yëf yi na mu ko waxee euh, bokkul ak na ñu ko euh, jottalee moom docteur Gaye nag la mu xamle mooy li nga xam ne moom mooy spermatozoïde kenn mënu koo gis ci bët ba tax na nag pré suñu ko prélèvement boobee nga xam ne. moom la ñu wax ne moom la ñuy def ci euh, Adji Sarr ci euh, premier examen gynécologique bi nga xam ne ñu ko amaloon ñaari fan ci weeru juillet ci atum deux mille vingt et moom nag la mu ci bëgg a leeral mooy spermatozoïde yooyee moom euh, mënuloon xam ba xam ndax ñoo ngi dund wala ñoo ngi dee ndax kenn mënu koo gis. la mu waxul itam na ay spermatozoïde la la mu wax rek moom nee na la mu wax mooy liquide séminal daanaka moom la ñu euh, vaginal bokk moom la ñu gis ci euh, kanamu ki di Adji te mosu wax ne euh, sperme la loolu la daal di fësal ba noppi nag Euh, mu dellu siwaat si li nga xam ne euh, moom mooy lésion vulvaire yi nee na itam loolu waxoon na ko te ba mu ko waxee itam dafa wax ne euh, amul lenn luy wone rek ne li nga xam ne gis nañ ko ci Adji Sarr si juge a ah, xam na mën nañu am fu mu jugee ndax mën nañu jël dara dugal ko si te lool moom examen yi mu def munu ko woon permettre mu wax fan la sécrétion yooyu noonu jugee loolu moo waral nag mu euh, indi leeral yooyu noonu euh, ci li nga xam ne nag moom mooy euh, est-ce que prélèvement yooyu nee na ba ñu koy yóbbu itam daanaka du du ab officier. moom moo ko yóbbu waaye personnel de santé moo ko yóbbu ànduloon ak benn takk der ngir mën a. aar wala boog fexe ba li nga xam ne moom mooy euh, prélèvement yooyu mu nekk lu dëggu donc moom mënula wax ak lu ko leer ne lu prélèvement yooyu dëggantaan euh, dafa jóge fi nga xam ne euh, foofu mooy Sweet Beauté naka noonu itam ba ñuy joxe li nga xam ne moom mooy yooyu les prélèvements ci teewaayu ki nga xam ne moom mooy Sidi Ahmed mbay la woon donc ba léegi mu ne euh, teewaayu kooku itam moom dara mënu ko leer fan la yëf yi jaar ba yegg si fi mu yegg si kon ba léegi mu mel ni am na lu loo xam ne moom dépassé na euh, xam-xamam ba tax na euh, mënul affirmer carrément ne lii ñu wax ni ci presse bi moom mosu ko wax loolu mooy li nga xam ne daal dina koy xamle si démenti bi nga xam ne Euh, bind na ko ba noppi nag mu sàkku ci taskatu xibaar yi ngir euh, ñu bañ ko waxloo euh, li mu waxul waxagul nag waxu plainte waaye xam naa dinañu xool fan la yëf di mujje ndax moom moo tontu waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo bind aussi amaana dinañu indi seeni firnde ndax bëri na ñi nga xam ne ñoom ñoo bind li nga xam ne moom la l'observateur bind Kajoor dañuy des ba tey ci biir procès ak waa Sud Quotidien ñoom nag ñu ngi joxe ay leeral euh, ci demande de requalification du délit de viol bi nga xamante ni procureur daal dina koy formuler demande boobe nag ki ñi ci indi leeral muy amaat Thiam xam-xama màcc ci wàllu yoon la mu xam xamle nag mooy procureur bi daf ko ci yokk ngir rek euh, ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko bañ a mucc ci euh, condamnation maanaam noo def mu ñu mën a am daan euh, buñ ko teg te loolu itam nee na procureur ci liggéeyam noone lay doxalee pratique la boo xam ne dañ koy faral. di gis ndax euh, su su su bu fekkee crime euh, crime la infraction boo xam ne euh, dañ ko dañ ko def pour benn lii dafay da koy an da boole ak beneen infraction su ko defee bi nga xam ne moom la ñu njëkk a topp su su jàllul beneen bi mën a jàll su ko defee par A ou B dina am condamnation boo xam ne dinañ ko teg ki nga xam ne moom la ñuy topp te loolu euh, procédure euh, maanaam démarche la boo xam ne miin nañ ko ci wàllu euh, yoon moom la expliqué te nag nee na loolee taxul itam ba li nga xam ne moom lay lay topp lay lay yokk ci ay infraction juge bi daanaka dëggal ko juge bi moom mooy moom mooy àtte ci axulaay taalam ci tey bakkanam bokk bu ko defee mu xool euh, tënku ci article cent quatorze bi bu code de procédure pénale nga xam ne moom moom mooy àtte mooy àtte euh, loolu moom la mu xamle itam ci euh, toujours cas bu muy Ousmane Sonko wala Adji Sarr nee na lu ne mën na ci xew mhm. Ousmane Sonko mën na si jëlee ndam comme mën na si jëlee mën na see laaj nee na li nga xam ne moom mooy viol bi mën na ci jëlee li nga xam ne mooy euh, acquittement mën nañ ko bañ a dëggal Euh, ñu dem dëggal leneen ndax euh, chef d'accusation yi bëri na nee na loolu yëpp euh, tout dépendra mhm. ci ni nga xam ne noonu la ko juge bi di apprécier mhm. te préciser na itam ne juge bi suy apprécier du dem ak émotion du dem ak opinion bi aussi li muy wax mais moom ci ay ay cëslaay lay wéeru maanaam mhm. ay ay preuve yoo xam ne ay éléments d'appréciation yoo xam ne moom la yor ci loxoom ci en fonction de ça ak li ko yoon may ci loolu lay sukkandeku ba juger su ko defee nag looloo waral mu ne lu ne mën na xew si euh, lii bi mu mel ni rek daanaka ba léegi dara dara euh, mën a mën lu ne mën nañ ko xaar daal si mhm. bi lay dossier njeexital bi waa APS euh, Kajoor ñu ngi ñuy jox ay nouvelle ci journaliste bi di Serigne Saliou Gueye waaw moom nag dafa def dañ ko accord de retour de parquet ni ki tey jii dina jàkkaarloowaat ak ki nga xam ne moom mooy procureur bi journaliste bi nga xam ne moom itam mooy directeur de publication bu quotidien bi di yor yor moom dañ ko Euh, arrêté di ko toppee nag li nga xam ne moom mooy outrage à magistrat naka noonu usurpation euh, du métier de journaliste et complicité de ces faits loolee ñu ko euh, toppee nag euh, taxoon ñu téye ko doon ko déglu ni ki euh, démb ñu mu am retour parquet donc moom loolu tekki mooy tekki rek ne fi nga xam ne moom mooy commissariat central foofu la fanaan tey jii day xëy demaat janowaat ki nga xam ne moom mooy procureur bi APS dañu wax xamal nag ne kii nga xam ne moom mooy Serigne Saliou professeur français la waaye itam mu ngi exercer métier journalisme depuis lu toll ci ñaar fukki at ak léegi nekkoon na correspondant ou témoin euh, hors de Dakar euh, kii di Serigne Saliou itam nekkoon euh, rédacteur en chef bu magazine bu façon boobu magazine People bi ñu duppee woon Icon moom nag da boobu le magazine sax daanaka doxatul waaye moom jot naa diriger euh, li nga xam ne moom mooy service politique bu journal Le Témoin ci ay at yu bari euh, moom euh, Serigne Saliou ginnaaw ba ñu créer li nga xam ne moom mooy quotidien yor-yor ba léegi mu jiite ko bu yàggul nag mu amoon ab article boo xam ne. mi bindoon na ko jagleel ko nag magistrature bu sénégalais ba loolu waral maître Moussa Sarr mi nga xam ne moom mooy avocat am nee na article boobee nag la mu ci bind bokk na ci li ko yóbbee tey euh, daanaka mhm. jafe-jafe yi mu am ak wàllu yoon dañ koy ndax képpee ak waa TF1 info ñoom nag ñu ngi ñuy xibaar ak génnub àdduna kii di Tina Turner xam naa euh, ci euh, émission yu bëri yi ngay def Aïcha dina am mhm. benn boo koy jagleel euh, ndax Tina Turner moom daanaka àddina wërngël képp xam nañ ko moom moo génn àddina nag ni ki démb ay atam toll woon ci quatre-vingt-trois ans moom nag ñu jàpp ne moom mooy la reine du rock and roll nekk doomu Amérique maanaam juddoo Amérique waaye ca mujjantal ga 2000 début 2023 bi dafa mujj am nationalité euh, suisse foofu sax nga xam ne fa la génnee àddina suñ sukkandikoo euh, ci porte parole bi nga xam ne moom moo euh, fësal tiis boobee nga xam ne dal na ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu musique moom Tina na moom daanaka mu ñuy xamle ne ca këram nga nekk ca Suisse fa la dal di nelaw ginnaaw ba mu amee. bam ba yaramam sutante ci ay mhm. diir yu yàgg sax moom nag euh, mu xarañoon lool lañ bu baax a baax ci wàllu musique ba mu ko tàmbalee ca atum 1950 euh, ba léegi donc euh, tey ji ñu mën a jàpp ne ci li mu jot liggéey jaay na lu toll ci 180 millions de mhm. disques lu toll itam ci li nga xam ne moom mooy Grammy Awards bi nga xam ne moom mooy distinction wu euh, ay woykat yu gën a mag yi ñu koy amal foofu ci États-Unis moom loolee jël na ko lu toll ci juróom-ñetti yoon euh, waaw mu nekk nag koo xam ne itam ci 40 yi nga xam ne def na ko musique jaay na euh, Euh, dix ak ay disque album yu bëree bëri bëri ba pare waaw euh, compilation itam yoo xam ne def na ko ak yeneen artiste mu nekk tiis boo xam ne dal na képp kuy yëngu ci wàllu rock mhm. and roll rawatina nag musicien américain yi dix albums des compilations ak euh, soixante-douze singles su ma juumul Kajoor mhm. ah, yaa ngi wax léegi suñu star américaine nit la boo xamante ni mën naa ne old school yi min nañ ko bu baax baax les années 1950 1960 ci la tàmbali di def li nga xamante ni euh, moo di euh, musique ñu ko doon woowee aussi Tina la combattante euh, nekk jigéen bu nga xamante ni jigéen bu bu nga xamante ni c'était elle était très courageuse parce que ci benn voilà ci benn autobiographie bi nga xamante ni defaloon na ko boppam mu ngi mhm. doon xamal li nga xamante ni moom la doon dund ak son mari. Alassane sànq yaa ngi doon tekk benn live euh, guitariste bi mu nekkaloon sur scène kooku moo nekkoon jëkkër. Mm-hmm. Euh, bi mu njëkk a sëyal mais kooku. Ah, voilà da doon da doon da doon utiliser li nga xamante ni moo di cocaïne donc du coup c' était très mu doon dund li nga xamante ni moo di violence conjugale euh, donc loolu da ko doon fësal ci li nga xamante ni moo di public bi bi mu demee ba séparé wu ak jëkkëram jooju en 1976 ci la démarré nag li nga xamante ni moo di une carrière solo exceptionnelle mu am ci ay récompenses. yu bari bëri li nga waxaan li nga xamante ni wax nga ko muy les Grammy Awards euh, maa ngi gis aussi autorité yu bëri di tweeter euh, di ko di ko rendre hommage ku ci mel Marie Le Pen ak ñeneen ak ñeneen euh, Pape bon wax presque bon wax nga lépp xam ne lu ma gën a marqué rek moom mooy bon elle est dans les années trente et dans les années trente à Tennessee Tennessee bon si sud États-Unis la nekk mhm. ñëpp xam ne foofu racisme bu grave moo fa nekkoon et bon Euh, boobu noonu bu nekk en tant que jeune fille et puis mu tombé ci mari bu nga xamante ne moom moom moo commencé carrière am et puis on a vu que après euh, kooku elle était ku ma doon wax sànq Ike Turner mhm. moom moo lancé carrière am mais presque plan finalement moom moo ko plombé mais ensuite bon am na relance dans les années 80 bon relance bu fulgurante et puis mu révolutionné un peu la la musique parce que ce qui était ce qui est bizarre c'est que moom euh, elle a une grande voix ba pare aussi de mën na def sur la même tonalité ay samples yoo xamante ni yu aigu yoo xamante ni c'est très rare dans la musique mhm. euh, bon loolu il faut il faut c'est une grande et puis bon ak crinière bi aussi la <laughs> coiffure voilà exactement <laughs> loolu si révolution la si et puis influencer artistes yu nga xamante ni ñoom nekk actuellement ñoo nekk si seen digg carrière mhm. ay Beyoncé ay Rihanna euh, presque ñoom ñëpp moom moo leen moom moo leen moom moo leen influencer surtout sa force mentale sa force bi nga xam ne mhm. ci lay amal problème ak euh, son son ex-mari bu bu mu doon bu mu nekkoon en en en, en bonne montée donc euh, moment boobu noonu déjà il fallait se départir du nom de alors parce que nom bi finalement dafa mu joon kolew ak moom comment faire pour se départir du nom de de ak ak tout ce vécu là bi mu amoon et il se partageait les scènes surtout mu ngi noonu donc ça a été très difficile mais force mentale boobu noonu moom moo ko moo ko moo ko déterminé boo boo seetaanee kii bi sa autobiographie boobu noonu loolu force mentale boobu man moo ma ci gën a moo ma a frappe à à bien moments, mm -hmm. elle a su garder euh, vraiment cet espace elle a su se battre. Mm -hmm. ko woowee la la la la la battante là. Mhm. c'est vraiment euh, c'est le mot qui qui s'y est parce que elle s'est vraiment battue. pendant lu ma lu ma si yokk rek mooy aujourd'hui par exemple soo xoolee scène musicale États-Unis mhm. c'est rare nga gis ay icônes yoo xam ne comme avant par exemple. amoon na moom y avait Tina Turner amoon na Nina Nina Simone la Fitzgerald damay wax ñi nga xamante ne ay musiciennes yoo xam ne ay icônes lañ aujourd'hui euh, boo waxee Beyoncé wax Rihanna ah en fait peut-être doon wax bon Alicia Keys bon kenn déggatu ko pratiquement dafay productrice la gën a nekk que musicienne en fait amatul léegi boo xoolee euh, amatul parce que tout simplement musique bi dañuy def euh, dañuy def plus dañuy accentuer aussi plus le commerce en tant que tel voilà business musique business que musique nekkatul parce que ñoom dañu doon musique en tant que di koy def euh, idéologie di def ay combat et tout alors que loolu aujourd'hui boo amatul ci amatul ci scène musicale bi léegi. voilà alors juste liñ ci sànni rek en plus d'être artiste nekk auteur compositrice elle aussi chorégraphe nekk danseuse donc boo leen ko gisee sur scène c'est une bête de scène elle chante hyper bien mais elle danse hyper bien aussi bu ñëwee sa salle bi day ñu ñëppay yuuxu ambiance am donc euh, star bu mag moo génn àddina à l'âge de 83 ans beneen ponk bi ñuy taxaw euh, muy coowal docteur Alfouseyni Guèye lii la wax waxu ko Pape. Mhm. yaa ngi woon tribunal. à la barre bi muy taxaw ci barre bi di wax yaa nga fa woon. yaa ngi doon degg lan la wax. bon <laughs> li mu li mu wax bon euh, bëri na mais lu ma si jàpp rek moom mooy par exemple lu nga xamante ni presse bi génnee na ko et puis peut-être moo andi euh, polé polémique euh, mais man lu ma si wax rek moom mooy lu mu wax lu ñu ni moom moo wax man moom laa dégg mu wax. kon li presse bi wax. moom loolu la wax. waaw man loolu laa dégg franchement après moom def na démenti et tout man mais moom loolu laa dégg mu wax ko peut-être mu après dafa génn repréciser pensée mun mais man loolu laa dégg et bu ma li journaux yi aussi ñu kii yëpp amul kenn ku wax lu contraire comment su se su fekkee c'est pas vrai que journaliste yu fa nekkoon yëpp wax laa même chose hmm. amul au moins benn journaliste boo xamante ne wax na contraire nu wax na ñëw wax na li nga xamante ne moom bi mu defee communiqué loolu la wax man gisuma ko donc ça veut xam nañ bon fan la fan la dëgg bi féete quoi man loolu laa dégg mu wax ko. Kajoor. xam nga c' est là où c' était intéressant que mhm. genre procès yu mel nii nga xam ne dafa bëri woon coow tenir en haleine pendant une année ñu defoon ko benn genre procès public boo xam ne tout ce qui se dit. ça ça passe en direct sur la sur, sur les wala dara bu loolu bu ñu ko defoon. génn di waxaat du am. génn di waxaat du am kenn du repréciser pensée am day leer et man avec le médecin là nañu waxante dëgg déjà le médecin man depuis le début man man man j'ai eu j'ai j'ai des doutes par rapport ak moom sérieux ak et parce que moi je ne peux comprendre yow nga ne médecin nga. keneen ñu ñëw ñu jël la ci guddi yow un cas de viol c'est pas à lui de de de de de de xam ndax il est en elle en détresse damay dama koy dem sauver un médecin responsable au moins yow bu fekkee ne am nga relation ak ki nga xam ne moo la woo ne la kii dafa nekk en en en détresse police mooy dem def loolu wala gendarmerie yow nga ne ko ok loo ko mën a def mooy nga sol sa blouse dem hôpital xaar ko foofu wala dem sa clinique xaar ko foofu mais yow yaay dugg ci oto dem dem jëli ko nañu waxante dëgg dem jëli ko yaa ngi dégg dem jëli ko ba pare yow nga indi ko on de affaire bi bi mu éclaté les gens parlaient de de de de de de de de de de de prélèvement wala de lii de là certificat médical affaire moom moo nekk au cœur de ça. Mhm. il n'a pas parlé il n'a pas jugé nécessaire de parler de ça. peut-être il se il disait euh, secret médical wala dara mais quand il, il est sorti nee na dañ ko menacé donc sa vie était menacée mu génn ne dafay wax pendant tout ce temps là pourquoi li mu génn wax ko noonu pourtant pourquoi génnul wax ko parce que moom peut-être on peut lui accorder le bénéfice du doute que il a été euh, de bonne foi wala dara parce que nee na ñooñu ay ay ay ay connaissance am lañu et tout ça mais au moins moom mu jël a mu mu leer mu leer ak nit mais il y beaucoup de zones d'ombre dans dans moom sa c'est sa façon de de communiquer et ce qu'il dit par moment il te dit non du mënuma ci wax parce que euh, secret médical wala dara mais après il sort il dit des choses nañu leer rapidement ñu tëj foofu lu ma gis euh, à la barre bon j'ai vu euh, bon j'ai vu à la barre quelqu'un de Euh, peut-être visage boo xamante ne boo gisee di nga ko m un peu parce que boo waaye c'était pas facile du tout toute la journée mi fa woon en tant que témoin pou assister genre parce que genre procès yi nii tout le monde regarde tout le monde écoute donc peut-être il avait un peu de la pression et puis les gens euh, que soit mu nekk procureur wala juge Euh, posé nañ ils lui ont posé beaucoup de questions yu nga xamante ne wax na je préfère pas revenir sur ça je préfère garder le silence ay beaucoup de man loolu laa gën a wala loolu laa gën a remarqué si passage am devant devant la devant la barre ndax si secret médical loo ko euh, loo ko wékk je ne sais pas. mais en tout cas lu ma lu ma remarqué moom mooy booy il était pas expressif comme les autres témoins yi nga xamante ni jàll nañu à la barre. am na solo merci Kadior euh, ci info yi nga xamante ni moo jóge ci web bi bu ko defee ñu enchaîner rapidement ak Pape Malick Thiam ci li nga xamante ni moo di la revue politique et économique léegi-léegi bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.